ñii amoon nanu dimanche muy dibéer yahudi ñoo amoon gaaw mu nekkoon seen bis boo xam ni ci lan daan feetu di ci yokk seen jaamu yàlla yàlla defal leen ko muy bis ci ñoom ñi ni tuddee te isa ñëwoon ci ñoom wàcce ci ñoom téere bu ñuy wax injil ñoom ñu amoon bis bu ñuy wax gaaw ah, dibéer muy dimanche yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw indil jullit ñi yàlla jaarale ko ci jibril mu wàccee ci yonent bi sallallahu bi ni xayru yawmin talaat fihi shams yawmul jumaa nee bis bis amul boo xam ni jant fenk na ca mu mel ni bisu àjjuma kon bisu àjjuma bis bu jant fenkee rek ci bis yëpp jàppal ni bisu àjjuma moo ci moo ci gën mu ni yowmul jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax nee na am na ci waxtu woo xam ne yàlla du ci delloo ñaan yàlla borom bi subhanahu wa du ci delloo ñaan lu ko ci nit ñaan dana la ko may ci guddi googee ci bis boobee muy bisub ajjuma saxaaba yi ñu bëggoon lu baax lan ci daan xëccoo fu nu dégg lu baax du nu am jàmm li fekk jotuñu ca walla ñu am ca ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan waxtu la ci ajjuma ji moo nekk waxtu woo xam ni waxtu woowu yàlla du ca delloo ak ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa leen ci ay wax junju leen ci ay wax leeral leen ñaari waxtu yoo xam ni yooyu képp koo xam ne jagleel nga waxtu yooyu ak ñaan borom bi subhanahu wa taala dana nongu sak ñaan bokk na ci waxtu yooyu mooy ma baynal xutbatayni imaam su duggee ba tàmbali xutba xutba bu njëkk bi ba toog laata muy jogaat diggante soosu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla du fa delloo ak ñaan lu fa nit ñaan jullit bi ñaan ko yàlla mu may ko mu teg ca ni gàtt na gàttaay goo xam ni dara ëpp fa solo nga wax moom yonent bi mooy wax mu ni dara ëpp fa solo nga wax rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati wa qina azab annaar ndax nee ñaan googu ëmb na lépp ndax ñaan nga lépp luy yiw ci àdduna borom bi subhanahu wa taala la ko ñaan nga it lépp luy yiw ci àllaaxira yonent bi yàlla subhanahu wa taala defal la ko ba pare musal la ci sawara nee na diggante boobu lu mu gàtt-gàtt ci diggante imaam bi muy def xutba bu njëkk bi bay toog di def istiraaxa bay jógaat eh, diggante soose lu fa nit ki ñaan borom bi subhanahu wa dana ko nangu mu ni baneen ba mooy sujjóot sujjóot sujjóot ci bisu ajjuma waaye nag néewuñu imaam sujjóot siggi nga toog fa rek di ñaan déedéet loolu taxul ñuy wax mooy diggante bi bu nit ki sujjóotee ba wax fa lam fa war a wax su fa dara desee nga def ak ñaan ndax yonent bi nee na jaam bi saa bu jigéen a borom bi subhaanahu wa jigéen goo xam ni yàlla day wax ni kii day yeyoo na ñu nangu ak ñaanam yeyoo na ñu nangu ak ñaanam fa innahu qaminun an yustajaaba la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe na ñu nangu ak ñaanam kon sujjoot boobu tamit ci bisu ajjuma ci waxtu ju jullig ajjuma diggante boobu su fekkente ni xaj na fa nga def ko fa waaye nag neewuñu néewuñu imaam gi nga bañ koo topp ndax topp imaam dafa bokk ci liy baaxal ak julli jaabir ibnu abdullah nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bisu ajjuma am na ci waxtu nekk ca bu bis ba di jeex buy lang diggante julli tàkkusaan ak julli timis waaye nag bu demee ba lu am lu ñuy tuddee shafaq maanaam bu demee bay waaja so ñenn ñi xayma nan ko ci ci bu desee fukki minute ak juróom ñu noddu timis diggante boobu la ñu baree bari wax ni moom la waxtu woowee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi su jëfee yitteem yépp bàyyi àddina wan ginnaaw soxlay àddina yëpp dëgmal sunu borom subhanahu wa taala ci waxtu su gàtt soosee ci bisu àjjuma lu mu ñaan yàlla subhanahu wa taala dana ko nangu am na ñu ni ginnaaw tashahud al axir min salaatil jumaa waaye li wér li wér te wér te nga xam ne boo demee ci kutub ahadis yi yëpp da ko ca fekk mooy xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wax ni ginnaaw tàkkusaan jàpp timis lu des tuuti ñu julli timis waxtu woowu moom ku ko jagleel sa sa bopp ngir ñaan borom bi subhanahu wa ko nangu looloo tax sahaaba alkiram ridwanullahi alayhim ajmain di salafu saaleh su ajjuna mus ajjuma musaanu jot moom amatunu yitte ci leneen amatunu yitte ci faneen fulul jublu seen boroom liñ ci man ci salaatu ala nabi ñu koy def luñ ci man ci jàng alquranu karim ñu di ko def luñ ci man ci ñaan ñu di ko def ndax booba ñoom yëgoon nañ xam nañ importance su ñaan ak ñaan limu man ñaan li muy def ak yëg-yëg bi nga xam ni amoon nañ ko yaqiin boo xam ni amoon nañ ko ci ni soxla lu mu rëy rëy rëy ak lu mu mag mag mag suñ ko tàllalee borom bi subhaanahu wa yàlla nongul leen ko amoon nañ yëg-yëg boobu amoon nañ yëg-yëg tamit ci waxtu yi nga xamante si ak bis yi nga xamante ne si xamoon nañ ni bis la yoo xam ni borom bi subhaanahu wa du ci dellook ñaan ndax yonent bi dañ ko daan wax bokk na ci weeru koor weeru koor moo tax ñenn ci ñoom di salafu saalix da nga daan gis ko am soxla su rëy rëy wax ko moroomam waaye danaan ko danaan ko ñaanal yàlla mu fekkele la weeru koor ba nga ñaan ko ko loolu lu siiw ñu daan wax allahuma balligh na ramadan ñaanal yàlla mu fekke weeru koor ba nga ñaan ko ko kon ñoom xamoon nañu ñaan importance bi mu am akit fa mu toll ci ñaan la borom bi subhaanahu wa taala musalee yonent yàlla noox ci xeetam wi nga xam ne ñoo ko doon sonal mu woo leen guddi woo leen bëccëg ngir dugal leen ci diine ji ko yàlla yónni inni daawtu qawmi laylan wa nahaaran fa lam yazidhum duaai illa firaaran waaye bi mu demee ba sonn ci ñoom ñaan ci la ko yàlla subhaanahu wa taala muccale ci ñaan la yàlla subhanahu wa mu muccalee Muusa ci noonam bu mag boobu di firawn ba mu koy dàq ji mook ay ña ko topp ña ko gëm ba àgg ci géej ga ñooy jàpp ni firawna dina leen jot inna la mudrakun Muusa ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu kalla inna maay rabbi sa diin yàllaa ngi ànd ak ñun te ñaan naa ko te dinañu gindi ñu musal kon ci ñaan la muccee ci ñaan la yàlla muccalee yonent yàlla saalex ca xeetam wow di samuut ci ñaan la yàlla subhanahu wa taala nongulee zakariya mi nga xam ni dund na lu ëpp téeméeri at amut njaboot amul njaboot mu ñaan yàlla subhanahu wa taala njaboot yu ko yàlla man dey maa ngi nii màgget naa sama soxna màgget na boore kook mënta am doom waaye nag bëgg naa njaboot inni wahana al azmu minni washtaala rasu shayba waaye xoolal li ko borom bi subhanahu wa taala wax bi mu ko ñaanee hab bi mu ko nee hab lii min ladunka waliya may ma may ma njaboot may ma njaboot boo xam ne yarisu nii wa yarisu min ali yaqub wajaalhu rabbi radiya ñaanuñu woon doom noonu rek waaye dañ ciy boole ñaan doom ju baax doom joo xam ne joo gërëm la kon da ciy bokk ci nit ki buy ñaan njaboot mu ñaan doom joo xam ne ju baax la moo tax mbooleem yonent yi suñ daan ñaan dañ daan ñaan njaboot gu barkeel gu baax ba ci ñu baax ñi sax ñu baax ñi di ay awliya saalihin ngay gis ni bu ñuy ñaan ak njaboot du ñaan njaboot rek waaye dañ ci ñaan njaboot joo xam ne day tënku ci diine tënku ci sharia tënku ci sunna ba pare baax ba pare baax Zakaria bi mu ñaanee loolu borom bi subhanahu nongul ko ko nangul ko ko ni ko yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaamin ismuhu yaxya lam najal lahu min qablu samiya kon ci ñaan la ko borom bi subhanahu wa lool ci ñaan la yàlla subhanahu wa taala teralee jaamam boobu di sayduna muhammad sallallahu alayhi ci ay barab yu bare bari bari yoo xam ni su fa musaana taxaw tiitaange ñëw ci ñoom daawut am soxla faneen ci ndimbal lu dul ci borom bi subhaanahu wa taala def na ko ci bis ci yowmu badr di jullit ñi taxawee nii yéefar taxaw na le jullit ñi seenu lim néew lool boo ko doon gam-gamlee ak ñaneen ñi ëppee woon nañ leen ñetti yoon yonent bi sallallahu wa sallam taxaw jublu penku tàllal ay loxoom séentu asamaan ñaan yàlla subhaanahu wa taala di ñaan di ñaan ba kaalaam gi mu tegoon ci ay mbaggam wadd abu Aboubacar ñëw for ko delloowaat ko ca waggam yu tedd yee ko sa borom dégg na la doy na nag sa borom dégg na say ñaan ci la ko yàlla subhanahu wa taala nongulee ñaan nga wax ni iz tastaghisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin kon ñaan ci la ko borom bi subhanahu wa teralee ci bis boobee kon ñoom xamoon nañu importance su ñaan fi mu toll moo tax bu leen yonent bi sallallahu waxee ni leen bisub ajjuma bis la boo xam ni bari na ay waxtu yu ca nekk nit ki bu sellalee boppam waajal bis ba bu ñaanee yàlla subhanahu wa dana ko nangu abu hurayra radiyallahu anhu dafa nettali ci benn xadis mu ni yonent bi sallallahu alayhi nee na man ixtasala man ixtasala yowma aljumaa xusla aljanaba nee na koo xam ni waajal nga ajjuma bisu ajjuma nga sangu-sangu janaba nga xam ne danga ko da ngaa yéene maanaam sangut googu nag day fekk nga yéene ko ci bis ba ko yonent bi sallallahu alayhi digle dangay ngay yéene ni sangu sangu janaba ngir bisub ajjuma nee na su ma raaxa fi saati l nga teel a dem juma nga teel dem juma maanaam nga teel a bokk ci ñuy njëkk a dem nee na fa ka annama badana mel na ni ko rendi giléem giléemu tukkal gu mag def koy saam séddale ko te yàlla tax nee na ku def loolu ku teel a jóg sangu ba pare teel a dem nag bokk ca ña njëkk dem ca ña njëkk nekk ca sàppe njëkk ya nee na wa man raaxa fi saati thaniya nee na ku dem ci ñaareelu waxtu bi nag maanaam teeloo ma am nga ñoo fa fekk am nga ñoo fa fekk nee na fa ka annama qarraba baqara nee na mel na ni ku ku rey ab xabbon xabbon mooy nag wu mag a mag nga saam ko séddale ko nee na wa man raaxa fi saati thaalisa ku ñëw na ci troisième heure bi maanaam nit ñaa ngi ñëw wala boog dégg nga ñu noddu ngay soog a agsi nee na kooku dina am yiw waaye nag fa ka annama qarraba kabshan aqran nee na daa mel ni rek ku jënd am kuuy am kuuy mu mag mu rendi ko te yàlla tax saam ko seddale nee kenn ku nekk yool yi la lay wax fi mu toll kii am na ab badana muy mu tukkal ki am na xabon muy nag wu rëy kii am na am kuy nee na wa man raaxa fi saati rabia ki nga xam ne nag ci ñeenteelu waxtu wi la ñëw maanaam xëy na ñëw na fekk na jumaa ji fees ba ci biti lay toog nee na kooku fakk annama qarraba dajaajatan ne mel na ni ku jënd ginaar mu rey ko séddale ko saraxe ko nee yool bu tol noonu lay am nee na wa man raaxa fi saati alxaamisa ki nga xam ne moom ñëw na ba fekk ñu noddu noddeelu ñaareel bi ba imam toog ba imam toog maa ni fekke na xutba waaye ñëw na fekk na imam toog nee na kooko fa ka annama qarraba mel ni ku jëndu nen rek aw nen mu saraxe ko maanaam poids boobu lay am ci ci ab yool nee na nag ki ñëw fekk imaam tàmbalee xutba tàmbalee xutba am na yoolub ajjuma waaye fekk na malaaka yi lem nañ seeni kayit ba toog di déglu nee na fa ida xaraja al imaamu xadarati al malaika li yastamiu zikr nee na moom loolu lay am ñëw na fekk na imaam bi mi ngi xutba teew na am na yoolub ajjuma waaye nag bonus yi nga xamante si moom la ñeneen ñi di ëppalante moom du ci am ndax fekk na malaaka yi doon bind ñoom lem na ñoom it seeni i këyit ngir déglu xutba bi ndax déglu xutba dafa am solo dafa bokk ci sarti ajjuma kon loolu day wone dayo bi nga xamante ne si bésub ajjuma bi am na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min afdali ayaamikum yowm aljumaa xam leen yéen jullit ñi nii xam leen ni bis bi gën ci seen bis yi mooy bisu àjjuma loolu na ngeen ko na ngeen yëg loolu na ngeen yëg ni am ngeen bis boo xam ne moo gën ci seen i bis bu leen ko sàggane mooy bisub àjjuma loo tax sharia di di xaraamal kuy tànn àjjuma képp di ci woor di natt àjjuma képp di ci woor ndax bis la boo xam ne bisu feet la bisub mbégte la jullit bi dafa war a yëg ni bisub tey bii wuute na ak yeneen bis génnoon mu ni fa aksiru alayya min as sola kon nag dee leen bari loo leen julli ci man bisu ajjuma yemul ak yeneen bis kon nag dee bari lu ngeen di julli ci man yonent bi sallallahu alayhi wa nee na fa inna salaatukum maaruda alayya li ngeen di julli ci man muy bari dañ ma koy gaaral dañ ma koy indil yàlla daf ma koy indil ni ma sama sama jaam bi diw ak diw ak diw ak diw day wala doomu diw ak diw julli nañ ci yow julli nañ ci yow kem kat lu toll nii kem lu toll nii nee na beneen bi mooy fa aksiru fiha addua dee leen ci bari tamit loo leen di ñaan ndax ci ngeen di gën a jige yàlla subhanahu wa taala borom bi tabaraka wa taala nee na wa ida saalaka ibadi anni su samay jaam laaje yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fan laa toll ci ñoom fan laa leen toll fan laa leen toll mu ne woon nee leen fa inni qaribun ujibu daawata daai iza daan su samay jaam laaje fan laa toll ci ñoom nee leen nee leen ku leen jige laa ku leen jige la koo xam ne saa boo ma ñaanee ma wuyu waaye nag da cee teg chart isa daani mooy soo ma man yàlla kon kon bul ñaan kaneen doo ñaan kaneen kaneen koo ñaan ku dul yàlla yàq nga sa ñaan ba pare teg nga sa bokk bàkkaar ban bakkaar mooy bàkkaarub bokkaale yàlla bàkkaarub bokkaale yàlla ndax yonent bi sallallahu kat dafa wax ci ab xadis nee na boo xam ni anas ibnu malik radiallahu moo ko solo nee na dégg naa yonent bi sallallahu mu wax ni nee na yàlla nee na ci xadisu qudsi xadisu qudsi nag suñ ko waxee mooy waxi borom bi subhaanahu wa taala boo xam ni wax na ko waaye nag ñëwul ci alquranul karim boo doon yër alquran doo ko fekk waaye nag da fekk sax yu niroog moom loolay xadisu qudsi mu ni yàlla nee na yab na aadam yow doomu aadama innaka ma daawta nii wa rajawta nii soo ma ñaanee yaakaar ma yow doomu aadama soo ma ñaanee yaakaar ma xafartu laka ala ma kaana fiika wala ubaali ma jéggal la ak noo mën mel ma jéggal la ak noo mën a mel saa yoo ma woowee rek man yàlla ba pare yaakaar ma kon charte bi mooy nga nga ñaan yàlla ba pare woolu ko mooy li nga koy ñaan mu wóor la ni lii moom rek moo la ko mën a defal yàlla nee na ma wuyula la la ak noo mën a mel maanaam bàkkaar boo mën a gàddu nee na yàpp na aadam yow doomu aadama yàllaay wax de law balagat zunuubuk anaana sama su ma staxfartani xafartu lak wala ubaali nee na say say bakkaar suñ toloon ni diggante asamaan ak suuf ci bari bari lool ak rëy nee na ma jéggal la ak nu mu mën a mel ak nu mu mën a mel du ma xool sax li nga defoon waaye damay yëg ni rek man teg nga ma sama place man yàlla yaakaar nga ma toroxlu nga jéggalu nga ma ma jéggal la ma jéggal la mu waxaat ne yabna aadam innaka law ataytani bi quraabil ardi xataaya soo ñëwoon ci man soo ñëwoon ci man maanaam nga ñëw fekk ni faatu nan ba dara sunu borom nee nga ñëw indi indiwaale bakkaar yu toll ni pepp suuf suuf ni muy bari bari bari lu toll noonu nga indaale ko ci bakkaar summa laqiitani la tushrik bi shay'an fekk bi ngay ñëw nag indaale woo bokkaale parce lu am solo la nag mooy indaale woo bokkaale kon bokkaale moom bàkkaar la bu rëy rëy boo xam ne yàlla subhanahu wa du ko jéggale nit ki su ko defee fa saase war naa tuub fa saase war naa tuub saa yu bokkaaleeg yàlla dara rek ci jël jël nit teg ko palaasu yàlla wala ñaan nit loo xam ne yàlla nga ko war a ñaan loolu moom bokkaale bu mag a mag la boo ko yóbbaalee te jéggulu woo ko yàlla subhanahu wa taala nee na la ataytuka bi quraabiha maghfiratan nee na lu toll ni bàkkaar boobu danaa la ko defal ci njéggal kon loolu day tekki yubaddilullah sayiatihim xasanaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni adduaa huwa al ibada dëgg-dëgg nag ñaan mooy jaamu yàlla mooy jaamu yàlla moo tax yàlla wax ni fadu llaha muxlisina lahu diin ñaan leen yàlla te jaamu ko ñaan leen yàlla te jaamu ko noonu la ko ibnu kasir tekkee ñaan leen yàlla te jaamu ko fadu llaha muxlisina lahu diin akit ñaan leen yàlla ta sellal ko ci yeneen kutubu tafasir waaye boo ci gis rek da ngay gis ni lépp dana delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala moom képp nga nga nga yaakaar kon addu'a silaaxul mu'min mooy ngànnaayu ab jullit kon ajjuma jooju lu nu war a bàyyi xel la wax naa ci teele ñëw gi wax ci sangu gi mu des nag ak sol yére yoo xam ni mooy yére yi nga gën a fonk yére yi nga gën a fonk am na ci yenn yenn réew yoo xam ni ñoom dem nañu ba àgg sax ci seeni jumaa bu ajjuma jotee yére yi nga xam ne day am dessin wala dafay am photo walla day am sax luñ ci bind moom doo dugg ci jàkka ji ndax dañuy jàpp ne yow da ngay da yàq jullit jàmbur ndax yonent bi sallallahu ci ay xadis yoo xam ne ay Aïcha tere na ko wax na ko mooy da daan tere nit ki jullee ci yére yoo xam ni day bari dessin wala mu bari ay ay mbind ndax ki nga jàkkaarloo muy bind muy julli amaana bu ci bëtam tegoo génn de génn ci julli gi jéem a liir li nekk ci yére yi wala mu xool sax photo ba moo tax ñoom fexe nañ ba seeni jàkka wala seeni juma danañu tere lu demee noonu nga xam ne rek lépp pour bëgg bañ a concentration bi jullit ñi war a am ci biir jàkka ji ñu am ko tere lépp luy jëm ci wàllu téléphone loo xam ne luy sone la walla luy yëglu la nga xam ne du déconcentré jullit bi ci bu tiimeeg boromam ndax bis boobu bis la bu mag a mag boo xam ni benn yoon lay ñëwaat ci semaine bi te xamul ba xam dina ko fi fekkaatam déet kon moom fexeel ba jullit boobu ngay dajal yow ca jàkka ja bul ko bu ko ko xañ moo tax saxaaba yi bi nu bi ñuy soog a dugg ci lislaam xam ngeen ni saxaaba yi tëbuñu tëb rek mel ni nu mel nekk ñoo xam ni dañ leen di joxañ ni léegi ku leen topp rek jub fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw tëbul yàlla tëbul rek wax leen lool mooy am na état bu nu jaar étape boo xam ne yonent bi di leen daan yar di defar di yar di jubbanti di tere ñuy def ay njuumte mu leen di corriger noonu la daan nekkee ñoom julli gii ñuy julli ba muy soog a wàcc dañ daan julli nekk ci biir sàppe bi di waxtaan aaya wàcc tere leen ko wa qumu lillahi qaanitin fa lañ ko mujjee tey defati suñuy jullit dañuy concentré wu ba boo leen doon domper sax duñ ko yëg loolu étape la julli ajjuma mas naa jot ñu nekk ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xutba ca Madina di xutba ci biir xutba bi ñu yéene ni marchandise mi jóge Saam ñëw na xam nga ni jàkka ji dafa dendoon ak marché bi ñépp daal di fëx génn jàkka ji dem lijjanti ci seen i marchandise foofu lan toll booba foofu lan toll bàyyi fa yonent bi sallallahu alayhi wa ci julli ñëw ànd ak ñoom noonu borom bi subhanahu wa taala yónni wàcceeb aaya wa iza ra'aw mu ni ñoom day suñu gisee ak yax ak ak njaay ak jënd wala leneen in faddu ilayha ñoom ñépp ñu buur dem fa wa tarakuuka qaa'ima ñu bàyyi leen nag yow nga taxaw fa rek di xutba nga xool jàkk ji gisoo fa kenn gis fa lim bu néew lim bu néew ibnu abbas nee na fukki nit ak ñaar ñoo fa desoon ñoo desoon ca jàkk ja ñi des ñëpp dem na waaye yàlla ni leen yàlla ni yonent bi ni qul wax leen ni leen maa inda allahi xayrun min allahi wa min tijaara wax leen ni leen yàlla am na lu gën loolu ñu dem wuti woon yàlla am na lu ko gën waaye ba mu aay ba wàccee jeex na defatuñu lu nu mel àgg na ci sax bu nu bu nu noddee fajar ajjuma bu nu jullee fajar du duñu jógati ci jàkka ji du duñu fa jógati fa la ñuy toog ba ginnaaw ajjuma ndax lu leen lislaam masa jàjje ci loola rek banoon ko saxaaba yi noonu lañ meloon lu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam masa yar du duñu ci delluwaat dutuñu delluwaat ñu ñu xéroon lan ci ci jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xeroon lan lool ci ci sàkku xam-xamu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ay jataayam ñëpp daaw ñu ko fekke waaye lu ëpp ci saxaaba yi dañ ko daan fekke lu ëpp ci saxaaba yi dañ ko daan fekke moo tax xam-xamu fiq bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa lépp mu ngi woon ci dënnu dënnu saxaaba yi lépp nag nekkul woon ci dënnu kenn moom amul woon moo tax mu looloo indi wuutey wuutey feq lu baree bari ci ci ci ci njàngale mi ndax da duñ wax ni saxaaba bi moo xam lépp waaye saxaaba bi daan xam dara kee xam dara kee xam dara kee xam dara waaye bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom it tooguñu rek ni la amoon doy na nan toog diggante Makka ak Medina dund fi di jaamu yàlla bu koy faatu waaye déedéet danoo yëgoon ni lislaam daa war a tasaaroo daa war a àgg Europe daa war a àgg Afrique daa war a àgg Amérique kenn ku ci nekk daal di jóg laxas yépp dem ñii dem Cham ñii dem Égypte ñii ñëw ba ci Europe sax ne fa waaye nag teg ay xalqa di jàng ak a jàngale bu nu jàngalee ba agsi ci loo xam ne xamuñu ko bu nu déggee seen mbokkum saxaaba boo xam ne jàpp nañ ni xam na ko ñu dem ca moom xam nga ni Jaabir ibnu Abdullah bi muy nettali ci benn xadis bu mu doon wër benn xadis mu laajte xadis bi ñu ne ko xadis boobu abdullah ibnu unays moo ko déggee woon ci yonent bi sallallahu alayhi mu laajte foo abdullah ibnu unays nekk ñu ne ko ma nga Cham Cham ci suñu jamono ji mooy li nekk diggante siri Jordanie Palestine ak lenn ci ci Liban côté yooyu moo nekkoon Cham xam nga ni diggante boobu ku xam ak Madina xam nga ni sore na lool sore na lool waaye comme dégg na ni Abdullahi Unes moo ko soloo moom it mu daal di mu jënd giléem moom mu nee na ma jënd giléem takk jëm saam benn xadis rek ngu lay wër nag benn benn xadis moo tax mu def mu def déplacement boobu yépp nga xam ni weer la ko def batale ak njabootam tey la leen ak sunu borom bàyyi leen li ñuy dundee daal dem weer mu di ko dox ba àgg Shaam laajte ni man day dafa am xadis bu may wër boo xam day wax ci fayantoo yonent bi sallallahu alayhi moo ko doon jàngale wax maanute gi borom bi subhanahu wa am ëllëg ba kenn ku ci nekk du dugg àjjana yóbbaale àq koo xam ne ma nga sawara keneen tamit du dugg sawara yóbbaale àq koo xam ne ma nga àjjana xadis boobu daal laay wër te nee nañ ma Abdullah ibnu Unays moo ko solo am ku ko ne ah kay xadis boobu day Abdullah ibn Unays moo ko déggee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu laajte ñu tegtel ko këram mu dem fëgg kenn ci ay taalibe Abdullah ibn Unays ubbil ko mu ne ko waxal ma Abdullah Jaabir mi ngi ci bunt bi di ko seet di ko nuyu nee na waaj dem ni ko Jaabir moo lay laaj mu ne ko Jaabir man xanaa du Jaabir ibn Abdullah mu ne ko ah kay gëj na ko allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasul ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu an laa ilaaha illa allah ashadu an laa محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام الصلاة Allah kon euh, noonu la saxaaba yi yittile woon ci sàkku xam-xam loolu rek lañ ci bëgg na junju xisa bu xaw a gudd la waaye xëy na loolu taxu ñoo jóg waaye euh, pour wax rek ni bu nu gisee yenn uute yu bari am ci ci fiq ndax fiq lu naqaree jàng la lu naqaree xam la lu naqaree jàng lu naqaree xam la li ko waral mooy xam-xam bi bi mu matee lislaam bi mu matee daa matul ci kenn nit kenn nit kooku moom lislaam mat na ci moom waaye nag matewul fépp kii da am lu mu yóbbu kii am lu mu yóbbu kii am lu mu te kenn ku nekk ba nga demee da ngay jéem a contextualiser sa sa xam-xam ak waa dëkk ba maanaam ngay xool na dëkk ba di dundee lu ci ëpp nga doxalee ko noonu sart euh, yi nga xam ne nag mooy tax ajjuma jullit ajjuma war jullit bi maanaam day am loo xam ni nag ndax julli ajjuma man war na ma léeg-léeg du bari dinañ laaj ba xam kii ka def na nangam ndax julli ajjuma war na ko ah kay ñi julli ajjuma war mooy dangay ngay doonub jullit ba noppi dañ lislaam kooko ci jiitu beneen ba ci topp mooy dangay nekk mu kàllaf am da kon xale ajjuma waru ko waaye nag suñ ko mënee yóbbaale yóbbaale goo xamante ne si du doon xale bu bari fo xale muy fo boo xam ne am bariwul mën nañ ko yóbbaale jàkka mu dem xam ne bu demee wala nga ragal xale bi amu koo ko bàyyeel mën nga koo yóbbaale juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni sëtam boobu ñuy wax umaama te doomam bu jigéen bi ñuy wax zeynab jur ko umaama yaayam dafa teel a génn àdduna te bi muy génn àdduna booba feragul daanaka yonent bi sallallahu alayhi wa maamam jël ko yar ko bëggoon ko lool tamit dan daan noddu sax juma dan daan noddu sax jàkka waaye du am kum bàyyee umaama day toog toog toog ba mu jigi waxtu wa nar faat mu jël ko yóbbu ko da ko daan yóbbaale di julli di ko gàddu buy rukon teg ko buy sujoo teg ko buy jógaatee gàddu ko loolu tamit dalil la ni xale bi fekkee amoo koo ko bàyyeel nga yóbbaale ko ci jàkka ji lu mën a nekk la waaye moom julli àjjuma waru ko beneen bi mooy góor julli ajjuma nag góor la war lu bari nag ci jigéen ñi dañuy dañ koy yanu yanu boo xam ne ni jàpp ni war na leen déedéet waru leen waaye bu ñu ko defee nag baax na suñ ko defee defin wi lislaam bëgg ñu defee ko mooy nanu beru nekk foo xamante ne si ay góor néewuñu fa du ñu indi benn fitna ca diggante génn ba ak dugg ba ca jàkka ja am fu ñuy duggee am fu ñuy génnee am fu ñuy waaje yooyu yëpp am su boobaa mën na leen a war waaye nag ki jullee këram ki jullee këram moo ko moo ëpp yool jigéen ji ñëw ci jàkka ji ki jullee këram moo ko ëpp yool alxuriya mooy liberté nga am liberté nag aussi am liberté boo xam ni dub jaam jaam boo xam ni dañ koo téye ci barab moom ko kooku julli àjjuma waru ko lu dul sangam def ko ko daf ko ko digal ak yeneen yi nga xam ne ngant day am nit ki mën naa am ngant loo xam ne tere na ko dem dem jàkka ay tàngoor bu méttee métti woo xam ne am na te ragal na ci boppam bu génnee mën na koo indil fitna kooku day mën a jullee ci ci këram wala sedd bu metti boo xam ne aw yaramam mayu ko muy génn di dem mën na koo indil gàllankoor wala tawat su boobaa it mën naa toog ci këram jullee fa soxlawul nag muy xaar ba jumaa ja julli muy soog a julli tisbaar déedéet fa julli tisbaar jotee rek mën naa julli du sart du sart nga naan faaw ñuy julli jumaa ba pare ma soog a julli tisbaar déedéet yow ñey julli jumaa ñoom jumaa la ñuy julli ñaari ràkk yu nuy biral yow nag tisbaar ngay julli ñeent ràkk yu ñuy yalu kon bokku leen loo leen di def beneen bi mooy ci charte sixa yi nga xam ne moom mooy tax julli gi wér mooy na am mbooloo mbooloo mooy julli julli juma waaye comme li ma ko wax woon sànq ni bari na ay ay déggin moo tax boo demee fekk ñetti nit ñuy julli juma bu leen ayibal bu leen ñii de amuñu juma li ñuy def du du noonu aha kay circonstance mën na leen fekk foo xamante ne si ñett lan ñaar ak imam buy ba mat na julli waaye nag loolu du tax ñu ni jumaa ja ma nga fële ñun ñett ñoo toog fii ñu ne nan nan wut suñu jumaa bopp déedéet loolu moom charia du ko nangu dem leen ci jumaa ja ngeen julli ji ak fu jumaa ja nekk dox leen ngeen dem waaye dool ngeen ci barab boo xam ne jumaa amu fa laajte ngeen xamuñu fu jumaa nekk te mat ngeen mbooloo mu toll ci ñett ci lu ëpp ci borom xam-xam yi julli leen aju ñenn ñi ñeneen fukk ak ñaar mooy ñi sukkandikoo ci xadis bi nett li léegi ci ñi doon julli après commerce bi ñëw ñu dem am ñu wax ñaar fukk am na ñu wax ñeent fukk faaw ñu mat ñeent fukki doomu aadama ak imam bi ñu soog a mën a ñu soog a mën a julli ñi wax ñett nag ñu bëri ci ngir imam malik ci lan bokk ibnu eh, suyuti tabari ibnu hazm ak ñu demee ñoonu ñoom nee nañ bu matee ñett ci kaw jamono joo xam ni jàkk nekku fa jumaa néewu fa ñu ngi nekk ci aw yoon su boobaa mën nañu julli xam ngeen ni ci yonent bi sallallahu alayhi bi muy gàddaay ci yoon wi julli na fa ajjuma julli na ajjuma ci yoon wi diggante bi muy jóge euh, Makka di dem Madina bokk na ci sarti julli ajjuma mooy faw day am xutba day am ñaari xutba julli ajjuma day am ñaari xutba wuuteeg yeneen julli yi bu dee julli ayit lu ëpp ci borom xam-xam yi nee na benn xutba rek baax na bu defee benn imaam defee benn xutba ajza aw doy na muy julli tabaski wala julli korite waaye bu defee ñaar moom moo gën waaye julli ajju moom faw day am ñaari xutba boo xam ne ni bii da koy wax ba ci yàgg mu toog daal di jógaat wax lu mu gàtt gàtt mu am lu mu wax lu mu soññee nit ñi faw munu cee munu cee ñàkk beneen bi mooy suñu xësee woote woote jullik ajjuma li ëpp nag ci borom xam-xam yi mooy nee nan mooy noddug ñaareel bi loolu la wax ñaareel bi nga xam ni mooy woote ni imaam toog na nee na su boobaa lépp lu nit ki doon def ci wàllu njaay wala jënd walla liggéey boo xamante ne si war lu mar a bàyyi la su boobaa moom daf koo war a dagg ko war a arrêté dafa war a bàyyi lépp daal di jublu ji dem dem julli ci loolu moom mooy ndigal li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax lépp lu ñuy def ba julli jot rawatina julli àjjuma woote nan na nga ko bàyyi moo tax léeg-léeg danga gis kenn ku laaj ab borom xam-xam ne ko man de dama am fu may liggéeyee waaye bisu àjjuma waxtu wa duñ ma may ma génn nan laay def su boobaa tontu lu simple la mooy nee ko ndax da topp ndigalu nit ki bàyyi ndigalu suñu borom laaj ko ci loolu mu xam mu comparé ndax ndigalu yàlla lan war a topp wala ndigalu patron bi nga xam ne moo la wax ni la ajjuma moom de liggéey bëgguma nga génn su boobaa la chaque tontu bi mooy topp ndigalu suñu borom kon nag demal kon laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an zikrillah mooy képp koo xam ne yaa ngi liggéey si yëpp contrat ak benn liggéeykat moo xam société la wala dara na bokk ca contrat ba man kat su àjjuma jotee damay julli ci su àjjuma jotee damay julli ci nag ma may nangami waxtu ma dem julli ji ko dellu si waat su nangoo ci loola xayrun su ko nanguwul nag nga ne ko ah, yàlla nag am na lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku bàyyi dara ngir yàlla rek tax borom bi subhanahu wa dina la wutalal laneen lu gën loola laneen lu gën loola ak doomu aadama na fekk ni Euh, ndigali sunu borom yi subhanahu wa taala na jiitu ci lépp na jiitu ci lépp loolu mooy bu fekkente ni dem nanu ba ba cay ba cay ba cay dugg baneen bi mooy nit ki di dem ajjuma di julli ji na ànd xelam na àndakum xelam bu nekk koo xam ni ku doye di la koo xam ne mën na faa indi luy jaxase jullit nit ñi wala koo xam ni jëfandikoo na loo xam ne yóbbu na mu xelam alxuraan day euh, euh, day wax ni bu leen di julli fekk yéen a ngi yéen a ngi màndi maanaam fekk na yóbbu am na lu yóbbu seen xel bu leen bu leen ko def kon yooyu mooy yi nga xam ni lislaam daf koy sàkku ci jullit bi mu mu fonkee ko bisub àjjuma yooyu yëpp nag li tax muy ñëw mooy sharia day wax jullit bi bis bi mu am ni mu toll wala yonent bi sallallahu alayhi daane digal salafu saalih ñuy waaj ajjuma bu alxamis jotee alxamis lan ko daan lan daan préparer ajjuma ñenn ñi dañ koy woor dañuy woor alxamis ngir waajale ko ajuma ji ñenn ñi ci guddig alxamis gi maanaam guddig ajuma ji ca la ñuy tàmbalee di def seeni xiyaamu layli ak i tahajjud bu demee ba ñetteelu xaaj bi ci guddi gi maanaam bu guddi gi màggate ñu jóg def ay rakka julli def ay du'a ngir lan ngir waajalee ko ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax dayo bi nga xam ni am na ko suñu xëyee nag ba nga xam ne ajjuma ji dugg si na ñu xam ni fenk jant fenkul bis boo xamante ne si toll na ni bis bi maanaam bis bii mooy bis bi gën a fonk bu gën a rëy ci bis yi ñu tàmbali nag lu nu am ci lu baax ci koy def lu nu xam ci lu baax ak ñaan ci koy ñaan ci jàng alquranul karim ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci def lu baax